dañ fi ñëwoon tey ci turu ministre Mariama Sarr ministre de la fonction publique et du renouveau du service public doon jëmal li ñuy tuddee benn processus dañ doon lancé benn processus boo xam ne bii dañ ko nar a tënk ci juróomi at deux mille am benn comité de pilotage boo xam ne ministre bi euh, jëmal na ko ci arrêté ñoom lañ doon installé tey ci kër gi pour ñu.

seni comportement gëna ñong ñoŋ te gën a ak fi nga xamné réew mi soxla nako mu di tegu ci yoon bi ñuy tuddé plan Sénégal émergent dañu né plan stratégique de développement la mu wara jël juroomi at loolu xalaat yi buñu waxtané wéccu xalaat consultant bi li mu indi ak ministère yi ñu convier ak tous les partenaires y compris même partenaires techniques et financiers buñu xalaté ba dëppoo ci li nga xamné mom non lañu wara doxalé centre bi